Demba Diop nag. mais boobu virus bi dugg na la boobu xam nga ne tôt ou tard da ngay dóorante. damay dugg waaw. non non àdduna xam nga kañ lay ñëw waaye fi di ko. xamoon nga ne tôt ou waaw. moom moo la gën a marqué ci làmb. moo gën a marqué ci làmb. ñu avancé tuuti benn instant dama naan rek euh, euh, Double. Mhm. Euh, damay xaw a génn tuuti ci làmb ji ñëw sa vie privée la benn instant. Mhm. dama naan mbër lan mooy sa coob sa plat préféré lan la. coow boo xam ne doo ko bokk kenn boo xam ne moo taxal ci coow bi sa plat préféré lan la. waaw man ku la xam ne moom ndoxalu sa plat préféré. ndoxalu Saloum. ko bokk kenn. yee baaxul. loxo njëriñ. ndoxalu Saloum rek. dama ko bëgg de ñëpp xam nañ ko maa maa ngi waa Gale bi dem dem lekk ay yàpp ay cere man ceebu ñebe lañ may togg man sa guddi la laay rek. Ah, c'est bien ça. Hmm. Ah, kon nag sa waa ji feeñ nga de. du ma du ma ko def moo avoué en exclusivité nee na Baxal mooy plat préféré mais ñu continuer euh, double kan mooy sa waykat. non man sa waykat Thiat Seck la. Thiat Seck mel. waaw mooy sa looy ñëw di 100 pour cent Guédiawaye yi. non barke yi ñu tudd loolu. Hmm. waaye Thiat di sama da da nekk sama mag nekk sama xam nga. waaw ah. amaana mooy loolu Thiat daal borom baax la yëngu xaalis bi jox ñun. xam nga nekk borom baax fu mu dem teewal géej waaye xam nga. Mm-hmm. buy waay dugal na si te yoroo saafara. Mm-hmm. te moom xam ne caat at naa koy dund. xam nga. ñun mm-hmm. fu mu toog ne booy sama lu xam moom mbër la peut-être yi fu mu fekk way ma xam nga yàlla def mu may ànd mu dem def dara ma ñu ko jàppale. caat fekk moom kooku moom mooy sama waykat préféré mu àdduna xam nañ ko. d'accord euh, kan mooy sa comédien. non sama comédien moom kenn kese la. muy Seexu Afia sama benn boy. siwai ka ko funto no kooku tëjagul waaye amaana kooku tey bu toogoon fii doo ñëw mu la ko jox ak sa dàgg non kenn nga may jox sa comédien préféré kenn nga may jox waaw kon bu nekkee kon kooku kenn xam ko sa dàgg sa dàgg bu Thiès waaw sa dàgg daf lay daj moom moom sama gars la sax sama mooy loolu moom sama waay la sama jur xew sama teew la sa dàgg daal mooy loolu mooy sa comédien préféré waaw moom moom mooy loolu ok ờ, série sénégalaise yi série Pod et Marichou un café avec oui oui maîtresse d'un homme marié euh, de Mars ban mooy sa série préférée. non man yàlla dafa maa dimbali yooyu du ma ko seetaan xaw ma sax. man daal bu nekkul làmb moom man yooyu sax du euh, daal génn di di bàyyi gars yi ñuy seetaan. football ba ci équipe nationale Sénégal doo ko seetaan. ma daan toog benn minutes toog fee 30 minutes. Ah, léegi ban équipe yeewu yeewu de waaw. yeewu fan lañ toog ñooñu championnat Espagne lañ nekk wala championnat France wala championnat. non ñooñu Angleterre wala. non ñooñu ay jàmbaar la jël nañ ko. yeewu yeewu de bu Gunaas boo ñëwee Gunaas boo taxee. ah Gunaas Gunaas la nekk ASC la. ASC la kon daal yow ASC mooy sa équipe. moom laa xam. àdduna wërngal këpp. waaw. Eh, kan mooy man Pambal. Paa Omar Sumba kooku mooy kan. Paa Omar Messi sama benn boy la wax dëgg yàlla. Paa Omar Messi. waaw Paa Omar Messi man kooku mooy sama joueur préféré. kooku brésilien la wala argentin la wala. booy bi waaye dem si yooyu la ndax amaana mu ngi ay centre yu am doole. Paa Omar Messi. Paa Omar Messi waaw moom mooy sa joueur préféré. waaw ban ASC lay joué. waaw moom daaw film bi la doon joué. film bi waaw la doon joué. kon daal yow baal daal la jógee dem film bi. ah dafa jógee waaye daal ñu transfert transféré ko film bi. waaw Paa Omar Messi. waaw mën na ba mën na football. macha allah kooku kay du ma la ko wax ñeneen ñeneen la ko ay moromam kon daal àdduna wëndal képp kooku mooy. sama sama sama fii booy man sama ñu gis ko Barcelone wala ñu gis ko Arsenal wala ñu gis ko. yàggatul PSG yàggatul de. ñàkk un jour ñu gis ko ci kaw. loolu la ñuy booy yi na football yoo xam ne dañu mën yàlla moom gars yi na di ko fay xaalis. Mhm. moom moom booy bu baax la sama fii la. moom sama booy la wax dëgg yàlla. ah baax na euh, ñu avancé tuuti benn instant dama naan nga liggéey ba tekki dal ci am alal ju bari mhm. lan nga ciy njëkk a def kër te fii sa kër la waaw sama kër la ndax sama kër mag sama kër la ah. waaye lu gën a neex si àdduna mooy sa kër ah. ndax borom kër gi ñaan ko Modou Gueye mhm. kii macha allah dafa jël ma neexee sama kër gi ndax damaa ma defar la nekk kër gi sa kër la aw ma fi indi bi sama ndey gi saal bi jox ma te amaana lii yombul su ko neexoon ne salle moo koy jël wala benn ji ba waaye néeg la ma jox ak salle bee ak salle. dama ko kër gi ma sax Idriss sa kër la ndax kër sa kër oh. nekk ma maa ngi su ma neexoon waaye yow foofu yaa fa ne ma nekk fa sama nag Cheikh Gueye. Hmm. sama kilifa ndax man ma ñëw si kër gi muy sama mag. waaw. c'est ça noonu la demee quoi waaye mag. mag tekki woon daal ci daal am am alal yu bari tabax kër gi ciy njëkk rek. mën naa si dëgg dafa am dara ndax samay doom a tax Euh, euh, ñu avancé tuuti dama doon euh, nga xëy un jour ñu ne la am nga benn baat réew mi loo ñu jëlee ko fi loo fi jëlee. lu fi jëlee. waaw moom dëgg yàlla avant tout jaxatu laa fi jëlee ndax loolu doxalu réew benn benn benn baat ci réew mi boo ko amul loolu fi jëlee. loolu laa fi jëlee waaw. ñu avancé tuuti. beneen fois dama naan mbër yaa ngi jéejewaay ah. kon laaj ma lay laaj Guédiawaye bokk ci. Euh, yow sa wàllu boobu instant bi su ma la laajoon euh, Sénégal ban koñ ban quartier wala ban gox wala ban dëkk moo la gën a neex Sénégal fan fan ngay fan ngay euh, fan nga ndax dëkkuma fa dama fa daan dem daanaka Sane Ndiarème sama benn jaayam. Sane Ndiarème mel. Sane daan doon waaw waaw. léegi ma ñëw mel fa laa dëkk. su ma fa ñëwoon tey jii booy da ngay mel ne ma doo xam doo xam day mel ni lay màlle lay taxaw si jur benn nga ne duubul ñu kër gu mag la kër Cheikh lay nekk dama fa jour boobu laa def xam nga loolu ne loolu nag xam nga toujours la trop moo moo dàq si euh, ngi Sénégal ah hmm. laaj ma lay laaj Sénégal boobu euh, duwul bu ma la ne woon adduna bi ban réew moo la gën a neex si adduna bi foo xam ne da ngay réew un fa. fan la États-Unis laa réew pour départ ñëpp lañu réew pour départ. da ngay réew dem États-Unis. waaw dama koy ñaan yàlla da yàlla xam naa ñu dañ fa teg sa tànk. incha dem gënuñu beneen sax dama naan eh, tey sa gaale laa la fekk de mais question yi ma indi tey tey tey tey question yi ma indi jeex na lan ngay tànn ko. waaw di wax waaw maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di gërëm waa place ba nag bu baax a baax a baax. place ba marché bees. waaw di gërëm sama moom maam Ndour bu wér a wér mhm. ndax amaana bu noonu mënoon leen su ma dee émission bi waxoon mu ne ma noonu damay liggéey waaye dina ma garaawul dama nga def ko mu ñëwaat xam nga ma ñëw def ko nag xam nga ànd see yow di leen gërëm bu baax tamit ndax amaana tey fu ma egg yow. Mhm. seen naa yaa fay gën dama la yor sama fari di wër kenn xam ma daamaa ne sax ba léegi sax mooy loolu waaye teewul yow koo taxaw ñu ne Seydina ñu ne ah ñëpp xam nañ <laughs> si baax xam na si yoru waaw di gërëm na sama yaay bu baax mu suuf ak sama soxna bi xam na mm-hmm. di gërëm ñëpp di sant ñëpp sama moom Mour Gueye Serigne Gueye mm-hmm. Cheikh ak waaw day jënd suuf mm-hmm. sama rakk tamit boo ko fàtte Ndiaye Gueye kooku sama rakk la boo sama caatu yaay ay ay booy sama booy nekk par ay ñoom Fallou. ay ñoom Papa ay ñoom Jaga ay ñoom Guèye. ay ñoom Mbaye. xam nga gars yi bàyyi ma kenn xam nga waaw moo ñëpp. bàyyi maa leen bu ndaw ay ñoom gars yëpp daal kenn ay maanaam di leen sant di leen gërëm. parce que xam man moom rek. dugul daal mi ngi rek. ñëpp la. Uh-huh. aw ma sant indi di fenn ñëpp mu na continuer. taxaw. na combat taxaw di wax nag. xam nga defal dara ñu am dara nekk sa rakk na leen jàppale nga xam ne fii àdduna la sa sama bu amee rek rakk war naa mën a am si yoon su boo ko tegee si waaye am sa rakk xam nga yor dara dem jàppale jàmm wala keneen keneen yàlla bu moom la am mag bu koy def amul solo te def ko si wax dëgg maa ngi koy wax ngir ëllëg mm-hmm. ñu yor seen xam nga mm-hmm. seen rakk yi war leen jàppale pour mm-hmm. ëllëg ñu dégg leen ndax fii ku fi ñëwee dañ laa dégg tey nga war tey 5 millions. a buux sa sa 2 millions buux ba gars yi xam ko. Uh-huh. waaye bëgg a xam ko. c'est pas intéressant amaana loolu solo dinaa bëgg dem mbaar quoi. Uh-huh. loolu tam may wax waaye bu baax. di leen wax juste que ne c'était avec euh, double moteur double moteur école de ah. nee moom mooy double original bi. mi ngi nii waa jee ngi nii ah maa ngi di leen wax juste que ne bëggatuma mu sumee ku taxaw taxaw ci yow ñu ne kii kan la. mais plutôt bu sumee ko taxaw ci géew dañu ah Double Moteur Bour mu sumee taxaw taxaw ci géew ñu ne kii kan la mais plutôt bu sumee ko taxaw ci géew dañu ah Double Moteur Bour Guédiawaye ngi nii mais lan la indi tey di leen wax bis que ni ñoo ngi leen jox dig daje ba beneen yoon ziar ziar sama gars yi jaa ngeen jëf